ci euh, samedi bi muy samedi 16 euh, décembre 2023 donc euh, parti socialiste fidèle à sa tradition donc moo moo woote ndaje boo xam ne nii mu ngi ko tuddee congrès extraordinaire d'investiture ku ñu ku ñu doon investir muy notre candidat le premier ministre muy Amadou Ba boo xam ne nii moom mooy candidat Benno Bokk Yaakaar candidat boobu nag ñun dañu bokk euh, ñu ko tànn te di fàttali rek que ça a un long processus boo xam ne nii euh, parti socialiste nekk une force politique dans le Benno Bokk Yaakaar waxtaan ak président boo xam ne mooy suñu président coalition le président Macky Sall ànd ak ak yeneen parti politique lu yaatu yaatu yaatu ñu joxoon suñu kàddu euh, le président Macky Sall nekk ko ñu tànnal incha allah. dañ dañu dañu ànd ak moom liggéey ak moom yàlla def nag muy euh, Amadou Ba boo xam ne ni vu son parcours expérience am vu aussi sa proximité avec le parti socialiste euh, muy tànn boo euh, choix bu baax boo xam ne ni ñun samedi bi dañ ko endossé donc investir ko donc désormais parti socialiste am na candidat comme ni ñu ko defee woon aussi en 2018 ci candidat président Macky Sall ñu investiroon ko maison du parti loolu lañu defaat euh, donc samedi bi bon ci euh, ndaje bi ndaje bu boo xam ne ne wax dëgg neex yàlla euh, du point de vue de la mobilisation des militant socialistes ndaje bu yaatu la woon ku gis day di leen gërëm di leen sant aussi bu baax a baax ci retransmission donc donc suñu congrès bi ku gis samdi maison du parti li fa daje ay militants li fa daje ay nit xam nañ ni euh, parti socialiste du parti bu tuuti. c'est un très grand parti parti boo xam ne nii euh, euh, moo sanc réew suñu réew mu Sénégal boo xam ne nii ci histoire politique Sénégal daf ci am place place bu mot sëkk donc ci loolu militants yi jóge nañ fu ne fu ne à travers les les quatorze régions du Sénégal. ñëw euh, ànd ak ñun ci donc euh, ci fête bi. parce que c'était une grande une grande fête une grande mobilisation euh, parti socialiste soo soo gisee woon kanam yi nga xam ne ne kanam yu c'est une fierté. Mm-hmm. ah c'est c'est c'est c'est ça a du point de vue donc de la mobilisation encore une fois vraiment zéro faute. voilà ñëpp gis nañ ko ñëpp xam nañ ni parti socialiste tey taxawaat na ci place am pour mun a. Euh, song élection yi di ñëw et puis pour une victoire de notre candidat. Amadou Ba